Je voudrais féliciter, outre le ministre des Forces armées et au-dessus le gouvernement, féliciter particulièrement le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Cherouad, le haut commandant de la gendarmerie nationale le directeur de la justice militaire, le général de corps d'armée Moussa Fall, le commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, féliciter le directeur général de la police nationale, le directeur général de la douane, le directeur général de l'administration territoriale, de l'administration pénitentiaire, le directeur de eaux et forêts, chasse et conservation des sols, le directeur des parcs nationaux, le directeur général du service national de l'hygiène, ainsi que tous leurs hommes et femmes qui ont admirablement participé à cette belle parade L'allure et la prestance rassurent sur le niveau d'entraînement et de cohésion des unités. Assurément, nos forces de défense et de sécurité possèdent les capacités propres à assurer la paix et la sécurité dans notre pays. À travers eux, à leur suite, je voudrais féliciter la jeunesse dynamique et vibrante qui a défilé en parfaite symbiose avec les forces de défense et de sécurité. Je peux dire que la relève est assurée et j'ai beaucoup apprécié le défilé des élèves et des écoles Il a été magnifique ainsi que les majorelles. Je réserve une mention particulière aux anciens combattants, dont le passage suscite toujours émotion et admiration. Chers vétérans, vous êtes dépositaires des plus hautes valeurs civiques, morales et patriotiques J'invite tous, la jeunesse en particulier, à s'inspirer de votre exemple pour un Sénégal de paix et d'harmonie. Oui, je suis conscient de toutes les menaces qui pèsent sur notre sécurité. C'est pourquoi je poursuivrai les efforts d'équipement pour doter les forces de défense et de sécurité, des matériels toujours plus modernes et toujours plus adaptés aux situations. Bien entendu, je n'oublie pas les personnels qui servent ces matériels. Je salue leur engagement malgré l'univers fait de dangers et de risques propres au métier des armes. je veillerai continuellement à l'amélioration de la condition matérielle et morale. Encore une fois, bonne fête de l'indépendance. mbokk yi am naa mbégte lool ginnaaw défilé bu am solo bii ñu gis tey lu ëpp ñetti at ci ginnaaw mënuñ ko woon def ndax mbas mi waaye ren yàlla may nañu ñu teewee défilé grand format muy défilé bu am solo buy wone kaaraange réew mi ci wàll yépp ci wàllu l'armée bi armée de l'air de terre ak marine nationale waaye aussi wone kaaraange gendarmerie nationale kaaraange police nationale wone itam sapeur pompier yi nga xam ne mooy brigade nationale de sapeurs pompier wane kaaraange douane muy soldat yi nga xam ne ñoo yor koom-koom bi wane kaaraange administration pénitentiaire ñoom ñu yor kaso yi wane kaaraange eaux forêt ak ñu yor chasse ak conservation des sols waaye wane itam kaaraange parcs nationaux yi yor bàyyima yi mais surtout service national de l'hygiène bàyyiwuma ci kenn loolu yëpp day wane rek taxawaayu réew mi ginnaaw juróom-benn fukki at ak ñett bu ñu moomee suñu bopp maa ngi félicité nag ñi nga xam nañoo jiite armée bi muy semga chef d'état-major général des armées félicité général bi jiite gendarmerie muy haut commandant de la gendarmerie nationale féliciter directeur général de la police ak ñi nga xam ne ñoo yor sapeur pompier poli douane administration pénitentiaire waa eaux et forêt chasse et conservation waaye itam waa parcs nationaux ak waa service d'hygiène ginnaaw ñoom ak seen ginnaaw maa ngi féliciter góor ak jigéen yi fi défilé tey wone taxawaayu réew mi ku gis lii xam ne Sénégal fagaru na fagaru na ngir aar réew mi ci fànn yépp nag aar ko ci bépp menace ci biir ak ci biti boo xam ne dana permettre nit ñu nekk ci jàmm nakk ci salaam waaye surtout ñu mën a aar suñu alal aar suñuy ressources loolu moo fi am ñu gis itam nag ginnaaw force muy l'armée ak ñi ma wax gis nañu défilé civil muy xale yi élèves yi muy défilé école yi yi wane na ñoom pare nañu ngir jël ëllëg euh, ñoom it ndonol yi ngir mën a taxaw Sénégal continuer taxawaayam ndax taxawaay boobu du dàkk mukk maa ngi waxaat lii ngeen fi gis lu ci gën a bëri ci at yi lañu ko jënd te kanam la jëm ku ci yàlla àndee ndax àdduna moo soppeeku saay-saay yi bëri nañu ci domaine bu nekk war na tax nag ñu gën a fagaru gën a yokk suñu kaaraange loolu dama koy wax ngir daral xelu waa réew mi wax ko itam ngir ñu xam ne ginnaaw matériel bi ay nit ñoo koy doxal nit ñooñu itam ñoom ñëpp à l'instar de toute l'administration euh, dinañu gën a bàyyi xel seen condition militaire seeni payoor ak seen situation njaboot maa ngi gërëm ñëpp di wax bonne fête de l'indépendance déwénati jërë ngeen jëf